waa Sidi man damaa yaakaaroon ne Ndeye Mbuub rek moo mën a way suñu générique bi mais ndekete déedéet xale bu ko gën fresh xale bu capable coupable criminel a ngi nii taxaw yow rakku Ndeye Mbuub nga wala lan nga doon ci moom li ngay way ni mbaa jàmm la waxal ak Aline Ndiaye waxal ak Aline Ndiaye ñu wayaat générique bi ayca dugg naa ci yow ba dugg kaso faw picc moom boppam kenn xamul jabaram dugg naa ci yow ba dugg kaso faw oo oh, oh. picc moom boppam kenn xamul jabaram yaa ma ni woon yaa may gunge ma dellu buntu àdduna gàddu caabi àjjana naa ci yow ba dugg kaso picc mu mbuppam kenn xamul jabaram li may daj ci yow ak li ma def ci yow xëy nga dem nga bàyyi ma samay mbokku dee duma